nga xam ne dañ lay fay ñe soxla service boobu te tey ay sénégalais di la fay ñuy wax ñu ñu tuddee ko lanteur administrative di jafe-jafe boo xamante ni yàgg nañ ci réew mi waaye nag li ko mën a dindi mooy taxawaay bu ma sëkk ndax bu fekkente ni mbooleem ñi nga xamante ni ñoom la ñuy tuddee ay fonctionnaire wala ñu leen di tuddee ay contractuel wala ñu ak nu ñu leen mën a tuddee dañ leen di fay ci trésor public nañu xam ni sénégalais yëpp leen ñoo leen di bokk fay ku jënd almet sax taxe bi dugg na ku fay facture ndox courant ak taxe bi dugg na kon lii président de la république def dajale na ñoom ñëpp wax ak ñoom ci bëgg-bëgg sénégalais yi ci wàllu administration képp ku ñu ci teg dara teg ci benn barab lañ la lañ la def loolu na ko def te mu gaaw heure yi ya nga war a liggéey dee ko liggéey boo ci mënta teg dara ngir réew mi it nag li liggéey euh, euh, liggéey euh, heure ya nga xam te ne yañ lay liggéeyloo mu bañ a manqué. loolu jafe-jafe la joo xamante ni réew mépp nga koy jàmbat réew mépp nga koy jooy waaw da ngay soxla kayit bi gën ndaw da nga jóge dëkk kub dëkk def ci dëkk ba ay fan waaw te boo amul loo joxe wala neex la woo du gaaw loolu nag. mën am réew mën ci dëkk gis nga réew yi xam nga dañuy tudd eh, eh, plan Sénégal émergent PSE Sénégal mënta émerger mukk ak système yii waaw nekk ci barab jàpp ni daal eh, sa baraba heure bu la neexee xëy heure bu la neexee wàcc ku la neex nga signal ko ku la naqare nga ba ku la jox nga signal ko ku la joxul mbiram yeex te ñëpp bokkuñu am parce que xam nañ les moyens foo defoo waaw ndax fi réew mi toll àdduna toll fii waaw bu bu yaboo nga ni nit ñi fi nekk nii doy na leen sëkk lañ yóbbu ci seen kër yi seen i njaboot waaw kon mboolem ku nekk ci administration bi te sénégalais yi di la fay na nga bàyyi xel sa diggante ak sam réew na nga bàyyi xel sa diggante ak sa borom ndax responsabilité la sunu borom moo ko wax ci Alxuraan Ibrahima wax ko yàlla subhanahu wa taala moo ni baada auzu billahi min ashaytan rajim inna arana al amanata ala alsamawati wal ardi wal jibali فأبين أن لها وأشفقن منها وحمل الإنسان إنه كان من جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما دابا jël ريسبونسابيلتي dénk ko asamaan attunu ko ma dénk ko suuf suuf attunu ko ma dénk ko doomu aadama nag wa xamalaha al insaanu ma doomu aadama bi nga xamante ni jàpp na ni lu mu def bu ëllëgee yàlla du ko xisaab ku tooñ boppam la waaye ki nga xamante ne xam na lii responsabilité la mu bàyyi ci xel am réewam bàyyi ci xel diineem boo liggéey suñu borom subhanahu wa taala dina ko gërëm kon mbooleem ku nekk ci bureau ak noo fa mën a nekkee ak këyit goo mën a yor ak lu ñu leen mën a def loo na nga xam ci suñu borom subhanahu wa taala ma ngi lay sëpp ndax kullukum raain kullu raain masulan raiyatihi rasulullahi moo ko waxoon alayhi salaatu wasalaam képp kenn ci yéen ab sàmm nga te kenn ku nekk danañ laaj la nga doon sàmm yàlla na jag nag yàlla na jag moo tax nag te rasulullahi wax na ne xubbul watan min al iman bëgg sam réew bokk na ci nit doon patriote lan mooy patriote mooy nga liggéeyal sam réew bëgg sam réew taxawu sam réew waaye di jar jariñoo sam réew rek te jariñoo ko dara bokk na ci li suuxal suñu réew yii waaw ba ñu bokk ci àll alamu salis les pays yi ñu tuddee les tiers mondistes waaw kon yooyu nañ ko bàyyi xel nañ nañ ko bàyyi xel bàyyi gi ñu koy bàyyi xel nag danañu dimbali bu baax a baax ñu mën a jëm ci kanam kon ñu ngi appuyer le chef de l'État waaw ci xalaat yi mu def ci am ba dajale leen wax ak ñoom da ngay xool sax keroog bis ba am na lu xew waaw ñu war a teg film jafe-jafe technique am ak lenteur am nga xam ne kon fépp la njàqasi di di baxe waaw waaw noonu nag muy baxee foofa ci centre ba ñu nekkoon ci salle ba ñu nekkoon bu ko lu ko gëna pire le Sénégal yi di dund waaw ci barab yépp fi ne nii nit ñi mom ñu ngi bëgg dé waaw fi ne nii ku ñu wutal kii rek so so soo fit rëcc wutal kii rek soo fit rëcc na ndax da nga pass de ko coupe dëkk dem te la nga bëgg do ko am te la nga am yëpp da nga ko joxé ba par délok loxoy neen ndax lan la nga leen jox satisfaire lu leen te dañu fay ko par weer dafa am lo xamanteni mo tax bari na luy yàq ak njabot moy lek lu lewul boo dee liggéey ñun la dee xey 8 heures Watch midi gontu 3 heures watch 6 heures bu 10 heures nga 11 heures nga porte malade ut certificat médical ou repos médical da bu yor jotté ñu fay la lañ la fay bu dee de 400000 yépp riba la. Bu ko dundé sa njaboot nak, do am lo neex ci sa soxna do ko am ci sa doom tax ci mi ci mi lu lu lu lu lu lu lu lu moo tax seexul xadim daan ni sakku lu lew talabul xalaali fardu ñeenti mi nee na sakku lew farata la waaw sakku lu lew kasbul xalaal ak talabul xalaal farata la ndax mooy tax nga mën a jaamu yàlla moy tax bo amé njabot yar ba nga bëgg ci ñom bo nga man ko ci am moy tax bo amé soxna la nga koy jox mu koy dund ci biram mu mën lew ba mën la dégg ba ngeen mën bok ànd jaamu yàlla kon nañu bàyyi xel ni lanteur bi ci réew mi ba ñëpp di ci wax ba chef de l'état jël ci ay mesures ñu ngi koy appuyer parce que am réew dara yuru ko lu dul liggéey pays yu émergé yëpp liggéey rek li liggéey rek waaye mën a liggéey ba mel ni mbaam mën a yàq ba mel ni golo torox ba mel ni xaj pexeemu ci waaw pexeemu ci sunu borom nag ba muy wàcc ci àdduna dafa wax ci arwaan ni bismillahi rahmaan huwa ansaakum min al ardi wastaamarakum fiiha man maa leen wàcc ci kaw suuf pour ngeen ngeen dundal ko ngeen dundal ko ngeen ngeen dundal ko ngeen liggéey waaw ngeen ngeen liggéey suñu borom subhanahu wa taala wa amalu liggéey leen bëri na loo jarxoon waaw liggéey leen lu baax waaw liggéey leen seen réew waaw wet wet yu nekk suñu borom subhanahu wa taala euh, euh, euh, tudd na yu demee noonu ci ci ci ci ci Alxuraan bi ci desaat it mu ni wala tansa nasibaka mina dunya wa ahsin kama ahsana allahu ilayk bul fàtte si cër ci àdduna cër mi ci àdduna nag mooy jaam yàlla liggéey nit deful lu gën jaam yàlla liggéey mooy àdduna waaw kon bul fàtte sa cër ci àdduna na nga rafetal comme ni sunu borom subhanahu wa taala rafetale jëm ci yow benn borom xam-xam wax ni euh, la racine du travail est amère mais son fruit est doux maanaam euh, tàmbali liggéey métti mais fruit bi mi joxe neex na le travail est la loi du monde manam gis nga pays yi la jiitu yëpp jiituwuñ la lu xam ba pare ko am xam-xam ba pare pratique théorie et pratique waaw ndax mu rab bu ni dañ ne a tarbiya ni waaw tatbiqi wa sit wa siq théorie ak pratique amna na ko le travail est la parure du citoyen suis un citoyen bi moy liguey manam nit bu garder bu garder eh, dignité am garder personnalité na dan dolem. ne dundé aw ci li eh, sunu yi eh, tardé moy da gis kenn dong yor leen ku xëy tëdd nit day nangoo daan dooleem te dundeewu ñàqam te bañu sukkandiku ci kenn ku ci nekk dafa war a sukkandiku ci boppam waaw ku ne dafa war a sukkandiku ci boppam eh, fi ñuy mujjee it nag ñu ñu bàyyiloo xel ñëpp ni eh, état li ko war mooy créer ay conditions yi tax nit ñi mën a liggéey ba ca desaatit barab ya ñuy ya ñuy nommer nit ñi